asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi waa kër Seex Ahmadou Bamba Mbakke Xaadimu Rasuul noo ngi fii tey ci Daaru Minam ji kër Sëriñ Moustapha Mouhamed Mbakke bu ñu ko defee ci tolluwaayub jamono ji xel yépp danañu dem ci gàmmuk Taïf gi ñuy waajal ci ndigalul Sëriñ Muntaxa Mbakke ibnu Seex Mouhamadul Basir xalif général des Mourides yàlla na yàlla yokk fanam ak wéram ba mu àggale ay mébétam sëriñ ahmadou moxtaar mbàkke xalif seex mouhamadou moustapha al karim jëwriñam sëriñ seex mbàkke xalif sëriñ mbàkke madina sëriñ abdourahman mbàkke xalif sëriñ seex ahmadou mbàkke gaynde fatma ci teewaayu sëriñ moustapha mbàkke mohamed ak ndigalam mooy fàttali mbooleem jullit yi ak taalibe yi gàmm gi mu baaxoo def at mu jot ca tayif di guddi gi nga xam ne moo di fukkeelu guddi ak ñaar ci weeru gàmmu di gane jamono ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu di ko yëgal mboolem jullit yi ak taalibe yi di ko yëgal kilifa yi diine yi mu bokkal Seex Ahmadou Bamba Mbàkke Xaadimu Rasuul di ko yëgal kilifay diina diine yi mu bokkal diine lislaam di ko yëgal kilifay aada yi mu bokkal réew mi waaye di ko di soññ nag njabootu boppam ak jëwriñam Sëriñ Baara Mbàkke mi nga xam ne moo jiite confédération ahibahul xadim li nusati diinul xawim kuréel gi ëmb mboolem kuréel yi bànqaasoo ci confédération ahibahul xadim li nusati diinul xawim ak mboolem bànqaas yi nekk ci biiram kuréel gi ëmb seex yi ci njiitul Baye Serigne Gueye Ngàcc kuréel gi ëmb jamaaxatul muridina dangoy laxasaay ci njiitul sëriñ Baaraloo kuréel gi ëmb waa Ansaaru Diin ci njiitul sëriñ Moodu Mbaw kuréel gi ëmb diaspora ci njiitul sëriñ Baara Sàll waaye kuréelu soxna yi ci njiitul soxna maam bu sa Mbàkke bintu sëriñ Abdul Asiis ngir woote bis boobu ak fàttali solo si mu am ak doxin wi ñu ko war a doxal sëriñ bi jébbal na kàddoom sëriñ Moustapha Bassirou Lo mu war a wax ci kàddoom fàttali nu bis bis boobu nga xam ne mooy gane jamono ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te Seex waxoon yu rëy yoo xam ne lamboon na ko njëriñul gàmmu gi waaye njëriñul wuy si sa sëriñ bu ko woote waaye nañu war a doxale ci bis ba ci jàng alquranul karim ci xasida istixfar salaatu ala nabi ak togg ay bernde ak yendoo ko fanaane ko yére yi weex tàll teg ca kaala gu baxa dawal sa ca baas ba jàng alquran xasida fanaane ko yendoo ko ba fajar sëriñ bi sant nu soññee nu ñaanal nu ñu bokk déglu sëriñ Moustapha Bassirou Lo mu jottali kaddu yi bàyyi ko ci sëriñ Moustapha Mbacke Mohamed aouzu billahi min ashaytaan arrajim bismillahi arrahmani asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jottali nuyóob a Cheikh Mouhamadul Moustapha Mouhamad Mbacké nuyoo boo xam ne bu kawee la ci moom mu wax ne bis bii nga xam ne moom lañ dëgmal di bis bu sëriñ Touba fonkoon te ñoroon sëriñ tubaa lool tam diggee ci lu ne jaraloon ko lu ne it muy yow yow mawlidi rasul sallallahu alayhi wa sallam di bés bi Seydina Mohamed ganee àdduna ñu koy wax gàmm Cheikh Moussa Mohamed wax na ne gàmm goog yi day mi ngi ko fas yéene def insha allahu taala ca Taif ni mu ko baaxoo defee nee na nag jëkk loolu lépp mi ngi nuyu tey ñaan da koy sàkku ci ñëpp ñu ñaanal ki fi nekkal. kim koy defal di sëñ Tuubaa ki ko fi nekkal di Cheikh Mouhamadou Mountakha sëñ bi neen mi ngi sàkku tali yëpp nañ ko ñaanal mu yàgg fi te wér ba li mu bëgg leen mu liggéey ko nee na noonu la koy ñaanale itam Cheikh Ahmadul Mokhtar Mbacké mi fi nekkal Cheikh Mouhamadou Moustapha waaye Cheikh Abdoul Rahman Mbacké sëriñ bi nee na mi ngi ñaanal mboolem bunti këri sëriñ Tuubaa yi fépp foo xam ne ah, ab lamp nga fa sëriñ Tuubaa samp ko muy nit Cheikh Moustapha Mouhamed Mbacké nee na mi ngi lay mi ngi lay ñaanal di la yéene ñala sa borom booleel yàlla na seen ub liggéey sotti colet nee na loolu it mi ngi ko ñaanal jullit yëpp al ummatul islamiya nee na nag bis bi ñu dëgg mën na bisu gàmm bis la bu ko yitteel lool yitte joo xam ci yitte Sëñ Tuubaa ji rek ca la ko dugal fas yéene ko taxawale na mu ko diglee woon mu wax nag ne la mu waxoon mi ngi koy feddali dafa waxoon ne bisu màggalu daalu xuddus de bis bi Sëriñ Tuubaa français Tuubaa ak bisub yonent bi saa salaam muy bisub gàmm waxoon na ne teg na ko ci loxoy ahibaa al xadim li nusrati diinil xawim muy liggéey bii mu santaane wax ne mooy jumtukaay bi muy liggéeyal Sëriñ Tuubaa waxoon na ne ñaari bis yooyu bu ñu agsee lépp na ko ahibaa al taxawu kon nag nee na mi ngi li taxawaay yooyu baax ci jëwriñ ji di Cheikh Cheikh Mouhamadou Lamine ak soxna Mame Boussa Mbacké ak na mboolem jëwriñ yëpp muy seex yi muy jamaatul muridina sadiqin muy ansaaru diin muy diaspora muy section yi juróomi bànqaas yooyu nga xam ne tey bu bu Ahibahil doo noonu ak kurus mooy juróomi per yi yi nga xam ne sëñ bi nee woon boo yëkkatee ñëpp jógandoo sëñ bi nee ne mi ngi koy feddilewaat di waxaan nag ne bëgg na taxawaay yuñ ci mos taxaw ginnaaw boo xamee sant na bu baax ca la weesu xolam sedd na guyit ci la weesu nee na mi ngi mi ngi diglewaat nan ci taxawaat taxawaay boo xam ne bu taxaw bu mos a jàll rek. bii nu mal dana kersaal booba ci ak yokkute ci lépp loola nag nee na gàmm moom weesuwut wuy si maanaam teew ak bernde ak tudd yàlla yett yi nag nee na moom ñëpp la ko digal daawati wati nee bëgg nañu wuy ko bàyyiwu ci kenn Cheikh Moussa nee na bàyyiwul kenn koo xam ne mooy sa bunt Sëñ Tuubaa nee na fekku tayf beneen ba ca desit nee na wàllu bernde yi lu ci waay mën na ko def kenn par kenn mbooloo par mbooloo lu mbooloo mi def lu mu bari bari koo xam ne saa borom mën na la ko ndax sëñ moo wax loolu dara da caa da caa dara da caa tuuti wut waaye dara da caa yéemu wut ndax sëñ Tuubaa nee na walaw bi xadri dirhami la wax sëñ Tuubaa moo bind ne donte benn dërëm nga ci def fa innahu kaman xadar yow ma xunaynin wa sabar kon nag nee na sëñ Tuubaa nee na boo defee benn dërëm mel nga ne saxaaba yi teewoon yow ma xunaynin kon Cheikh Moussa nee na nun ñëpp kenn par kenn kuñ ci na nga xool fa la yàlla tolloole sëñ Tuubaa féete la ba mu wóor na li sëñ Tuubaa am na lu féete Cheikh Moussa neen loolee na nga ci tibb defal ko ci bis bi kenn ku nekk na la wax bàyyiwul kenn góor jigéen mag ak ndaw nee bëgg na lu bis bi daan mel rek na romb noona nee na teewaay gi it bàyyiwul kenn na ñëpp ku man na nga teew bàyyiwu ci kenn teewaay gi la bëgg ndax kaman xadar la sëñ sëñ Tuubaa wax kaman xadar gàmmu dañ koy teewee dañ cey jëf da ci jaamu yàlla kon neen nañ ko waajale noonu beneen ba ca bokk ci li gën a ñor nee mandarga suñ mandarga mii nga xam ne moom moom la nu wutal te muy diggam ak boromam muy yére yi nuy sol di lu weex li ak kol gii sëriñ bi nee na bëggut bëggut a teg bëtam ci ku ko solul ca biir baas ba ko bàyyi xel te kuy dem ci mbool yi na ko yóbbaale bëggut teg bët moom fa muy toog ci koo xam ne solo yére yi tegoo woo kol gi koo xam ne it sama borom dogal na it da koo amut it te mën ko wut dal ko wut wala ngeen wutal ko rek waaye daal ak bëggam dal mooy ku fay ñëw nan bokk melokaan wi rek ndax moo waxoon ne kenn ku ne ci noonu boo delloo ci sab ruq ca barab di fa liggéey laayee ma nga daal liggéeyee da liggéeyal ma waaye nag su ma toogee ngeen toog nag benn melokaan rek mbub mu weex mi ak kol gu baax gi rek te it sama na ko ci loo xam ne di su ko xam te ëllëg lañ koy xam waaw kol gii du kolu kese du lu ñuy rafetal du lu ñuy taaroo waaye lu ko suñ lu ko suñ tuwi digal ak boromam mu dinu ci liggéey lu am lu nekk ci biir loo xam ne sax sàllahu di su ko wax kon nag nañ ko waajal képp koo xam ne dem nga koo mën a waajal sax pour wutal ko sax na nga ko def kon nee na nañ ko waajale noonu teew Taïf ca ku tedd ka nag te Cheikh Serigne Mohamed moo mi nga ne am na ngërëmal Serigne Touba am ngërëmal kii ñuy defal gàmm ñu teewaat ca kanamam defal ko gàmm gi ci noonu yi mu ko bëggee kon nee mi ngi mi mi mi ngi ci woo ñëpp te fas yéene ko ànd ak ñoom fas nekk ci suñu kanam nee nag mi ngi ñaan suñu borom ci barke Serigne mi nga xam ne gàmm gi lu ne sëriñ bi digg ko ci lu mu ci mosu rek nun nu am lu ëpp loola ca dara ji sëriñ bi ndax sëriñ bi ci boppam ku tedd ki bi muy wax digg ma yonent bi sallallahu alayhi daa wax ne giñ naa ci yàlla ne giñ naa ci yàlla sëñ Tuubaa moo giñ ne yaminu rabbiya liqaa'uhu ahab ilayya giñ naa ne daje woon ak yonent bi ba teg ko bët moo moo ma gënaloon dégg nga min mil i bu yootee saab sama kër yi ma am yëpp kër gu ne ak néeg yi ñu duy ko oor ba mu fees duy ko or ak wurus ba mu fees jox ma ko teg bët yonent bi tegoon ko bët ci saayir moo ma gënal waaye nag ginaa mënuma lool nag ginaa mënu ma lool nag ma fas yéene jël sama xalima di ko tag rek di wax ak baaxam di ko tagg di ak baaxam tagg googe ak baax googe dana ma xëcc ba ne ma ka nga soxla woon mi ngi nii yaa ngi nii tagg yooyee nag mooy xasida yéen fay jàng di jës bu ak mooxib ak muqaddimat ak barsan ba yooyu fi mooy tagg sëñ Tuubaa yooyu kon nañ jàpp ne sëriñ bi képp ku fa teew na nga xam ne kookee de xaw ma fu ñu nangoo de waaye noonu jàpp na ne fenn ko def moom bu geesoo bu geesoo gis kon nee na mi ngi sant nag bu baax sëriñ sëñ Mouhamadou Lamine sëriñ bi nee na xolam sedd na ci li weesu li dëgmal xolam sedd na ci loolu moom jàll na waaye li dëgmal nañ fas yéene lu ñu defoon benn ak na mat fukk kon nag jërëjëf nee na mi ngi sant bu baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ginnaaw kaddu yi bàyyeekoo ci sëñ Moustapha Bassirou Lo ñu di ko sant di ko gërëm dañuy jox soxna Bese Ndiaye mi nga xam ne mooy wax ci turu maam bu sa Mbacke bint sëñ Abdoul Aziz noo ngi ñaan sa borom moom it yokk fanam ak wéram bam àggale ay mébétam ngeen gisee jataay bi war ngeen xam jataay bi li ko waral te yaakaar naa ne at mu jot ci waxtu wi daan nañ ko def muy màgg di waajal bisu Muhammad Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam muy mawlidu nabi ñu daan ñu di ko def mu Moustapha Mbacke Mouhamed di ko woote dañ koy defee ci Taïf bis boobu moo dëgmal si waat ñu di ko woo mbooloo mépp ci turu soxna Maam Boussa Mbacke mi nga xam ne moo jiite mboolem jigéen ñi nga xam ne ñoo aji ci Ahibaayil Xadim li nusrati diinil xawim soxna Maam Boussa nee na mi ngi soññi jigéen ñëpp ci bisub mawlidu nabi boobu nga xam ne seexu naa seex Ahmadul Xadim bis la bu mu fonkoon daan ko taxaweel boppam ci njaareem bis boobu itam. moom la Cheikh Moustapha euh, Mouhamed di taxawe na ko maamam ja waajuram ya daan taxawe di ci woo ñëpp nag képp koo xam ne yaa ngi ci Ahibahil Khadim wala nga def soppe rek sëriñ bee ngi lay woo taayif ci bis boobu bi màgg boobu bëgg ñëpp ànd kook moom nam ko daan defee te màggal gi mu koy màggal itam ci sunna rek la koy màggale mooy temps siimuhoo bi sunna waaye loole itam mi ngi koy digal taalibe yëpp ku ñëw itam nga sàmmonteeg noonee nga xam ne noonu la ko sëriñ bi di màggale wala noonu la koy gàmmoo ca Taïf te lépp mu teg ko ci sunna si yonent bi salallaahu alayhi wa sallam te la ca jiitu ci gàmm mooy jàng alxuraanul karim kon tax na sections yëpp ñu ngi ciy digle ñu jàng fukki kaamil ak ñaar góor ñi ak jigéen ñi bala ñooy egsi ci bisu gàmm gi waaye itam buñ ca eggee nee na lu waay mën a jàng ci salaatu ala nabi ndax mu yonent bi salallaahu alayhi wa sallam lañ koy defal te moom dañoo war a julli ci moom kon lépp lu waay man ci salaatu ala nabi rek ñu ngi la cay soññ bu baax a baax a buñ ca eggee ca bis ba waaye itam di soññ mboolem section yi nga xam ne ñooy ñëw jigéen ña ca bokk buñ ñëwee itam ñu féete ca ña nga xam ne mën nañoo jàng ñu féete jàppale ñi nga xam ne ñoo yore affaire éducation ba ci njàng ma ndax xam nga ni ci baas bi la ñuy yendoo jàng di ko fanaane te itam ay xale yu jigéen dañ fay nekk ak ay mag bi séddale ay téere ci mbooloo mi lu ñu jàng ñu di ko indi di ko bindaat loola itam ab équipe bu am doole moo ko war a def kon ñu ngi cay soññ ñëpp képp koo xam ne jóge nga ci section ñëw itam boo demee nga soññaat sa section ña fa mën a jàng bu ñëwee jàppale nit ñi ci njàng mi ndax loolu la fa sëriñ bi santaane sëriñ bi la mu bëgg mooy bis bi ñu yendoo koo dundal ci alxuraanul karim yendoo ko dundal ci xasida waaye yendoo koo dundal itam ci salaatu ala nabi fanaane ko kon amut lu ku egsi rek da ngay jawali ca baas ba lu waay man cim njàng ñu ngi ciy woo ñëpp waaye beneen ba ca topp itam mooy bis boobu dafa am lu mu laaj rawatina nag ci wàllu jigéen ñi waaye rawatina itam ci ndaw yi mooy ca col ga kon war ñi ngi soxna si mi ngi soññaat mbooloo mépp ci képp koo xam ne yaa ngay ñëw nga sàmmonteeg colug lislaam nga nga xam ne moom la la lislaam sant ci wàllu jigéen ñi ñu ngi fay tere ñu sol yére yu xat wala yére yu yaraax lu waaye di sol daal na doon lu jot lu dëppoog lu lislaam santaane ci colug jigéen loolu lañ fay bàyyiloo xel ñëpp kon buñ ca yeggee itam ca yar ak ca teggin ya itam ñu ngi koy fàttaliloo ñëpp ñu xam ne jataay booba du jataayu waxtaan du jataayu puukarewu waaye jataayu fàttaliku yàlla la jataayu dundal bisub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la waaye na ko yonent bi sallallahu alayhi wa bëgg ak Serigne Touba daan ko ko defele noonu ñi nga mag ñu baax ñi fi jaaroon ñëpp doon ko defee ba ci Serigne Moustapha Mbacke mi noonee rek la ko bëgg te moom ñun ñoo koy ànd andi ca baas ba yéen doo ko fanaane ko ba asamaan set kon loola kenn ku nekk war na koo bàyyi xel bu baax soxna si nee na mi ngi ciy soññ ñëpp beneen ba ca des itam mooy ku ne gàmm ne bernde bernde yooyu itam mi ngi koy fàttali ñëpp lu waay man ci bernde bu ko xeeb ku mën a togg ndab ci sa kër togg ko indaale ku mën a defar kafe defaral ku mën a defar meew defaral boo mënee defar ngato itam nga defar lu waay man daal ci bis boobu ndax lu ca waay def rek lu mu tuuti tuuti nee nañ bu ko xeeb waaye lu mu bari bari itam bu ko yéem ndax bis ba yelloo na lu ëpp loola kon ñu ngi koy bàyyiloo xel ñëpp kuy ñëw daal na ko waajal ci fànn yëpp bernde yaa njàng ma ak col gu yiw ga ak tegu ci ay ab yar ak ay teggin ñu ngi koy fàttali ñëpp di leen ci soññ bu baax a baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. mbokk yi kon bis baa ngi noonu gàmmook tayif na ko ñëpp waajalandoo ni ko sëriñ bi diglee waajal ko ci jàng alxuraanul karim waajal ko ci jàng ay xasiida waajal ko ci togg ay bernde waajal ko ci sër yére yu weex tàll te set wecc teg ca kaala gu baxa te képp ku ne cëpp ca dëkk ba mu daal di jawali ca baas ba nu yendoo ko ci kanamam ànd ko ak moom fanaane ko bis ba daal amut defi lenn amut siyaare amul dugg ak génn la fa am daal mooy toog yendoo jàng alxuraanul karim ak xasiida ku ko yàlla la lawul nga ngàbb sa kurus di wax astaxfirullah wala laa ilaha illallah loo ca man baax na nu yendoo ko fanaane ko ci kanam sëriñ bi ba asamaan set sëriñ bi sant nu soññeenu sëriñ bi sant nu soññi nu ñaanal nu nu doog a yewi ko waat sëriñ bi nag mi ngi sant mbooleem taalibe yi rawati jëw jaay kuréel gi nga xam ne moo di confédération ahibahil xadim te ñu jaayante ak moom ànd ak moom di liggéey liggéey boo xam ne bii kawe na mu ngi leen di ñaanal ngërëmul yàlla ak pajuk aajo waaye mi ngi soññ itam di leen soññiwaat ci ñu ànd góorgóorlu ngir ab sëriñ ci di ci ndigal lay jëriñu ab taalibe mi ngi sant ñëpp ñu góor góorlu di ba sëriñ bi nga xam ne mooy jëwriñam ji jiite kuréel gi mi ngi soññ boppam sëriñ Baara Mbàkke mu ngi soññ boppam waaye di soññ mboolem kuréel yi nga xam ne dañoo ëmb ay mbooloo yoo xam ne dañoo nekk ci biir confédération bi kon nag kenn ku nekk ci jëwriñ yi na fexe ba soññi ña nga xam ne ñoom la jiite tàmbale ci Baye Serigne Gueye nga ci mi jiite seex yi na jiite mbooleem soññi jëwriñ yi jëwriñ ju nekk soññ ña mu jiite Serigne Bara Lo jamaatul muridina saadixiina na soññi mbooleem jëwriñ yi kenn ku nekk ñoom soññi ña mu jiite Modou Mbaw mi jiite Ansaaru Diin na soññi mbooleem jëwriñ yi ku nekk ci ñoom soññi ña mu jiite Serigne Bara Sall mi jiite diaspora na soññi mbooleem jëwriñ yi ku ne soññi ña mu jiite soxna Mam Bousso soññi mbooleem soxna yi ku nekk soññi ña mu jiite ñu àndandoo mboolem section yi ak daayira yi ñu àndandoo mel ne ay wagon lonkante doon genn lonkante takku ci ginnaaw wagon ba bopp bopp saxaar gi nga xam ne moo di sëriñ Baara Mbàkke mi mu yóbbu ñu ca ngën ji gaar te muy sëñ sëñ Moustapha Mbàkke Mohamed te bu ñu àggee wàccaale pajuk ajo ak faruk bakkaar ginnaaw kat